أعوذ بالله بسم الله الحمد لله wasalaatu wasalaam ala rasulillah seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi gannaaw bu nu musuloo seytaane sant yàlla julli ci sangu-sang yi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëwaat ak yéen ci suñu bindu tey ci téere bu màgg bii di laxdari yu ñu ngi tegoon suñu baaraam ci fa yaa xasratahum wa yaa tuula bukaa'ihim abdurahmaanul axdari di wax ni fa yaa xasratahum woo naa seenu pertaange wa yaa tuula bukaa'ihim woo naa seenuk yàgg jooy kan ñan ñooy euh, nekk di perte ëllëg yow ma xiyaam ak ñan ñoo fay jooy jooy yu metti di wax yaa layta ni kuntu ak aka neexoon ñuy suuf aka neexoon ñuy suuf ba nga xam ni yàlla dañuy jëri rek ñu naaw kenn du ñu topp dara kenn du ñu euh, xiyaas kenn du ñu xisaab ëllëg yow ma xiyaam ñooñu ñooy rëcc di ko jooy jooy yu metti ëllëg yow ma xiyaam ca mooy almuflisuuna mooy ñi perte مفلس ني موي ني بيرت ني هو الخاسر موي نيغا خامني دونيو فيك دارا تي جيف دي باخ اولك يوم الخيام يال نتي يالا موسل نسال الله ني نيان يالا دي واخ سبحانه وتعالى ان يوافقنا مدبلني mu tëppale ñu li itibaa sunna di nabiyina ci yàlla ñu ngi lay ñaan ñu ngi ñaan yàlla mu dëppale na topp sunna seydina muhammad mi ñu nu booleen sallallahu alayhi wa ndax moo ko wax ni wa ma ataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu lépp lu leen yenente bi indi ni ci man la bawoo jàpp leen loola ca xam ni dëgg la waaw lépp lu mu leen tere nangeen xam ni man seen boroom maa leen ko tere na ngeen ko maytandiku daw ko loo leen man waaw moo tax ñun ñu ngi ñaan yàlla mu dëppale ñoo diine seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa huwa xabibana wa sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw moo may suñu soppee di suñu sang bi dox suñu diggante ak suñu boroom ndax moo ñu indi risaala gi ñu dugal ci diineen islaam kon mooy suñu sang di seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag mooy suñu soppe lu jëkk gannaaw ba mu doonee soppeb borom bi subhanahu wa mooy soppeb borom bi subhanahu wa kon ñu nit ñu sopp ko ngir cofeel ga ko gi mu gi dox bi subhanahu wa moom seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yenent wi yàlla moo wax ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila yuuxa du wax mukk ci teeyaa te teeyaayu bakkanam déedéet du wax mukk ngir bëgg dërëm du wax mukk ngir ngir ngir cërale nit ki waaye lépp lu mu wax rek ci borom bi subhanahu wa taala la jóge moom yenent bi alayhi salaatu wasalaam inni taraktu wax nañu ñi bàyyi naa leen nag euh, ñaari mbir yoo xam ne boo leen ci jàppee du ngeen sànku ci àdduna moom yenente bi alayhi salaatu wasalaam moo ni inni taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma man tamassaktum bihima kitaab allah taala wa sunnati nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni bàyyi naa leen nag ñaari mbir yoo xam ne boo leen ci jàppee du ngeen sànku ci àdduna ñu ne ko yooyee ñaari mbir mooy yan mu ni téere yàlla bu màgg bii di alquranul karim ak sama sunna te mooy sunna seydina muhammad nga xam ni yàlla moo ko koy digal nee na képp ku ci sukkandiku di àttewoo alquran di di dundal di dund dundal sharia waaw dugg ci diine lislaam di ko jëfandikoo jëf-jëfi sharia di àttee alquran nee na musiba du am ci at ci ci réew mi ci aduna waye tam ëllëg yowmal xiyaam ca ngay gën a xam jëriñ la waaw waaye nag nit ñi mënatoo comprendre sax lu ñu bëgg waaw wa xitaaman sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ala nabi alxabibi alladina huwa min ajali niami allah niami illahi taala ala xalqihi shukran lah wa sanaan alayhi wa li xawlihi taala mu deen loo xam ne nii dañu ko danañu ko mottilee muy muy muy darsi bu mujj ci tawxiid bi li ñu mën a tudde tawxiid ci téere laxdari bi ndax bu ñu jógee ci leçon bi insha allah ñu ngi dugg ci ibaadaat yi bëgg a doore ci njàpp li ba ca julli ak la war si julli yépp insha allahu taala waaye bu dee li ñu mën a tudde tawxiid ci téere bi fii lii mooy dars bu mujj bi waaw nee na gannaaw ba nga gëmee loolu ci ñaari mbir yooyu yépp nga mottale ko di julli ci yenente bi foo toll di ko tagg di ko kañ moom yenente bi alayhi wasalaatu wasalaam ndax lan da koo ye da koo yeyoo da koo yeyoo ak topp ko wa taatu nabi sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu nag ñu mën koo teg ci xawlihi taala ci waxi borom bi mu wax ni inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما li borom bi wax ni man ak samay malaayika dañuy julli ci yenent bi alayhi salaatu wasalaam kon yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla gëm yenent bi julli leen ci yenent bi waaw julli leen ci yenent bi te saa boo jullee ci moom day dellusiwaat ci yow comme teng si boo sànni ci xe ci ci ci miir ndax boko doore ci mir ba namu dale nonu lay dellisoo ci yow kon néna julli gi ngay julli ci yonente bi alayhi salatu wassalam comme balu tay ci la boko doore dóoree day dellusi ci yow kon yalna yàlla boole ñu ci soppe sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu tegandi fofu suñu baaraam rek insha allah taala ci semaine bi di ñëw ñu dugg ak yéen ci tahara insha allah taala alamana allah ilmu taqwa wa sadatu akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين